ibnu Abbas ne yett yi day amoon na ca ceddo ga ba lislaam ñëwagut mu ne nag gannaaw bi lislaam ñëwee itam jullit ñi ñoo ci war a gën a xir ña nekkoon ca ceddo ga ndax da yett yoo xam ne yetti jikko yu mata mata sàmm la kon nag jullit ñi ñoo ko war a gën a sàmm ba ci jëkk mooy suñ amee gan taxaw temm ci toppatoo ko mu jaral leen lu ne defal ko lu baax jaral leen lu ne ñaaral bi mooy buñ takkee jigéen bu mu xës mage ay atam bari duñ ko fase ndax jàpp ne ndegam ànd nañoo moom ba ak ndawam jeex mag gi ñëw moom buñ ko fasee it du xam fu mu jëm fu mu jëmati it kenn du ko soxlaati te kon xëy na mu loru ko ñetteel mooy seen dëkkandoo su demee ba naqar jamono jàpp ko duñ ko seetaan faaw ñu taxaw temm ci def ko ne seen bopp dimbali ko ba mu weesu tolluwaay yooyee